nag liko waralon moy mooy euh, gis né tenir nañ benn CDD ak monsieur le préfet euh tenir CRD ak monsieur le gouverneur di jaaree ci lolou di leen sant bu baax di leen gërëm ndax li leen waron yëpp def nañ ko mais CRD bobu dañ see togon ak monsieur le gouverneur convoqué fi ay chef de service ndax ku wax ziar annuaire de Léona sen da nga tudd chef de service té te les chefs de service ñom ku leen xam xam ne ñoo fi représenter ñoo fi représenter état lu ci démé né liñ ci ñëkke moy point bu njëkk moy sécurité wax dëgg yàlla musuñ ci am ben problème euh problème musuñ ci am ben problème ndax engagement yi nga xamné jëlon nañ ko fi ci GMI ak commandant de la police bi nga xamné mo fi représenter woon monsieur le commissaire ci nombre bi nga xamné jël nañ ko ak sécurité bi nga xamné jël nañ ko pour lew nañu sen duñ ci am ben xalat que ne incha taala dana mat kon bobu amuñ ci ben souci inshallah euh ñuy jàll ci deuxième point bi muy Sonatel Sonatel machallah mention spéciale ak ñom ndax engagement bo xamné jëlon nañ ko ci ziare bi moy ubbi nañ wi fi zone yi demb ñëw nañ ci tente bi nga xam ne mooy tente la ñu seen xool nañ wifi wifi yi nga xam ne descente yi war na fi war na fi wàcc incha allah dana fi wàcc à partir d'aujourd'hui ñu ñëw taxaw ci troisième point bi nga xam ne mooy assainissement euh, ku tudd gan yi fi wàcc yu nekk da fi tudd set danga tudd vidange danga tudd aspect yu bëree bëree bëri euh, vidange yi moom alhamdulilah li nga xam ne diggee woon nañ ko ak ñun def nañ ko moo waxoon nañu cinq oto dinañ ñëw une semaine avant ñëw nañ def nañ relew nañ seen 160 rotation waaye itam amoon na leneen loo xam ne demandé woon nañ leen ko mooy li nga xam ne mooy toilette mobile yi toilette mobil yi ba tey ci assainissement fi mu toll gisaguñ ko kon loolu ñu ngi ciy taxaw di ci ut ay leerlu incha allahu taala ñu jàll ci aspect bi nga xam ne mooy Senelec Senelec nag par technique euh, ndax ku tudd ziara annuelle law nañu seen da nga tudd éclairage Senelec soxla woon nañ ci ñoom ay bouclage yoo xam ne euh, bouclage yoo xam ne dañ koy def ci kër yi ñu bindoon ci nombre bu toll ci 100 keroog da jógeen nañ fi dem Dakar toog ak directeur général personnel bam nañu incha allahu taala dina ko def waaye daal ñu ngi jooy yéexaay bi nga xam ne yéex na ko itam des na lamp yi nga xam ne digga woon nañ ko ñoom seen Senelec ne danañ ko danañ ko indi taal ko fi nga xam ne mooy entour law nañu sañ ci jaleñ ak quartier ko wër yëpp démb ñëw nañ def état des lieux bi waaye ba tey fii ñuy wax ak yéen gisaguñ leen léegi ñu ñëw ci mairie ku tudd mairie xam ne moom mooy ndey ji dëkk euh, CRD bi nga xam ne teniroon nañ ko fii ñu am fi seen représentant vi ki nga xam ne mooy adjoint au maire docteur ñëw teew fi mais moom engagement bi jëlon ci ziare bi gisuñ lenn luñ ci def amul ben ben ben engagement bo xamné jël nañ ko def ko def ko fi amut ndax mairie ku xam ku tuddu mairie xamné ne lenn ci lampe yi sax ñom ñoko waron tal indi tal nañ fi ay quelques lampes mais demande bi nga xamné defon nañ ko mataluñ ko ñoy kër diine gi nga xamné ne ñoo leen gëna jege te dégg gis nañ limuy def ci gamu yi lu démé na gamu gamu yi bu xewé kaw lak ak gamu yi xew ci sous-région bi da fay génné budget spécial jagleel len ko lew Léona Niassène li di mairie amul ben budget bu muy génne ne budget bi moy temps pour ziar annuel de Léona Niassène te ñëpp xam nañ ne programme bi moy programme bi ëpp Kaolack à part gàmmu gu mag yi kon ñing koy ñaawlu bu baaxa baax euh CSA bi nga xam ni ñoo yor walu ceeb bi ñoomi dañ fay taxaw euh dañ fay am problème à chaque fois ndax at yi yep yëpp deux ans wala 3 ans depuis Covid bi ba léegi CSA amul ben participation bo xam daf koy def ci pèlerins yi gani maam xalifa yi nga xam ne dañuy ñëw fii dimbali kilifa diine yi nga xam ne dañu fay nekk ngir wàllu waañ yu mat ndax li ñuy laaj ñu ñu ñu rappeler que ne suñuy droit la ñuy laaj ndax dañuy gis ñu koy defal këri diine yëpp te gënale gënale moo tax bëti bukki di jooy buñ ko defalee kër gi bàyyi kër gi rek loolu dafay nekk lu doy waar CSA tamit lew nañu seen gisul boppam ci moom ñu ñëw ci service d'hygiène wax dëgg yàlla ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm ndax une semaine avant ñëw nañ teew dugg nañ ci kër yi pompe nañ pompe bi ñu war a pompe yëpp waaye ci pompe boobu noonu ñu taxaw ci tuuti daf ñoo gis ne pompe yi bu ñu duggee pompe ci kër yi dañoo gis qualité pompe bi ñu pompee kër yi dafa xaw a doy waar ndax kër goo pompe matagul waxtu boo duggee ci néeg yi euh, fekkat fa yooyu ak yoñ yi nga xam ne pomp nañ leen kon loolu itam ñu ngi koy déployer seen liggéey rafet na nag ndax engagement bi ñu jëloon ci teel a pomp nañ ko waaye liñ pompe liñ pompe euh, produit bi xeetu produit xeetu produit bi nga xam ne pompé nañ ko dañoo gis que ne wax dëgg yàlla awul yoon bu ñu ñëwee ci santé euh, ñu ngi gërëm waa santé ndax mos point la boo xam ne mosuñ cee am jafe-jafe médecin danay jël engagement boo xam ne Euh, ci post avancé yi ak ak ak ak nombre bi nga xam ne dana koy génn ci ay garab jagleel ko ziar annuel Léona Niassène euh, loolu xam naa incha allahu taala ku tudd bis bi tudd sante ndax fi ay milliers personnes di dajee dañ fay soxla wér ñoom nee nañ danañ taxaw taxawaay bi nga xam ne daan nañ ko taxawee incha allah seen o tàmbali na ay branchement am waaye dafa am lu ñu seetlu dañoo seetlu ne qualité d'eau bi ndax robinet yi ba tey boo ci ubbi day génne air day dégager air boo xam ne kër yi yi nga xam ne étage la R plus 1 la pour ndox mi yéeg sax problème lay doon te bëri na ñoo xam ne ci njabooti kër gi ñi ngi jàmbat ne seen point yi daan na am euh, te amul kon ñoom it ñi ngi xaar ndax tey la jeudi d'ici suba incha allah ñu mottali seen liggéey ci loolu. Azerut moom dafay càmm ñu lew nañu seen fu mu toll ndax bu ñu xoolee lew nañu seen kër yi euh, alentour yi tali yi nga xam ne wër na lew nañu seen yëpp amul benn tali bu ci baax lenn daal def na ko mooy tali bi nga xam ne jugee na pharmacie boulevard jàpp Médina euh, jàpp Médina Baye te bobu dafa moy tali bi nga xam ne mopp accident fi ci Kaolack def nañ fa trois ralentisseurs yo xam def nañ ko fa waaye xaaruñu woon ci ñom lool rek ndax fu toll na Léona sen di xaar ziar annuel de sen euh di dalal ay milliers de personnes ñu ñu sàkk woon ci ñom bolem tali bu wër Léona sen ñu defar ko ñu defaral ñu trois trois ralentisseurs ñoom it Ageroute société la bo xam ne respecté wuñ la Léona sen dañoo ñu kër mam Khalifa ni nga ñew ci ñi nga xam ñoy autorité Kaolack yi ndax ku tudd comité d'organisation mooy def ci bâche ba ci làmp télé presse bi dajee loolu yëpp mooy yëpp moom moo koy def euh, comité d'organisation bu bindoon na ay demande audience fii ci biir euh, ci biir autorités yi nga xam ne ñoo nekk Kaolack ndax aspect technique dafay am aspect social am euh, waaye ñi nga xam ne ñoo ñoo agir agum ñu jot leen par téléphone ñu agir ak ñi ne danañ agir ñaar lañ ci jotagum bindoon nañ ñu fàttali ne bindoon nañ monsieur Ahmed Youssouf Benzaloum pour demande audience mais ba tey moom it amul benn réponse boo xam ne bindon nañ itam monsieur Serigne Boub maire de la ville jëloon na engagement waaye engagement yi wax gissaguñ ci ben bindon nañ ci cadre audience pour social monsieur Pape Mademba Biteye directeur général de la senelec wax deug yalam dimbalé na comité d'organisation bi avec une euh, avec euh, une forte somme bo xamné machallah tay tay buñ ci taxawé rek euh, dana mëna sotal ci liguey bi lu bari bindon nañ itam ministre conseil monsieur mohammed Ndiaye Rahma jotante nañ mom dembu par téléphone mu né dafa nek ci urgence waaye bu ñëwé inshallah liko war ci bis bi dana ko def ci comité d'organisation, bu lew nañu seen bindon nañ itam monsieur Pape malik Ndour waye jotuñ ci mom ben réponse ben réponse bo xamné day ñëw bindon nañ itam euh, monsieur madame Maria Massar. Euh, waye itam jotuñ ci mom ben réponse bo xamné ne euh, réponse bo xamné day ñëw jëm ci au niveau comité d'organisation, de leew nañu seen ñuy waat xel di wax né li ñu wax ni fii ñu ngi loo xel autorité ne leen lew nañu seen du ñëw gis mag ñi rek euh, daal di dem ndax liggéey bi ngeen gis muy tante bi ak lii taxaw liggéey ba la ngeen gis mu taxaw muy daaray maam Khalifa Niass di internat be li ko lancé yëpp lépp li ko lancé yëpp jeune jeunesse bi la ñoo génne seen moyen ni bopp ñoo koy def kon nañu bàyyi bu ñu ñëwee rek di yem ci mag ñi nañuy wax ak xale yi ndax vision dañoo wax ne xale moo ko am vision ñep xam nañ ne xale moo am kon ñu ngi sakku sàkkuwaat ci ñom né nañu gëna respecter comité d'organisation euh, d'organisation d' organisation de Léona Niassène bi nañuy gën di wax ak ñom nañuy gën di diisoo ak ñoom ndax penc mo xamné lepp lu fay taxaw ndaw yi ñoo taxawal té comité d'organisation bi ci lay jaar kon ñu ngi sakku ci ñom nañu gëna respecter nañu gëna jox suñu cër ñu ngi dégg itam né amna ay xeexoo yu amon ci sous raison bi premier ministre monsieur Amadou Ba ñëw na Euh, am na foo xam ne dem na am na foo xam ne anticiper na ko waaye ni ngi koy wax moom it monsieur le premier ministre na tëddee njaaxanaa ci këri diine ndax leew nañu sax ñi ngi seen ziare bi ñi ngi koy def samedi incha allah ñi ngi koy xaar moom monsieur le premier ministre fii ci lew nañu seen kon loolu ñu ngi koy ñu ngi koy wax ñi ngi dégg ne itam tey ministre de l'intérieur ñëw na am yu mu fi inauguré fii ci région bi te ku tudd ministre de l'intérieur yaa ngi tudd culte moo ci waroon jiitu ñëw na ba fii te yaakaar nañ ne mboolem lettre bu ñu waroon a bind mu dem ci intérieur dem na fa kon ñi ngi ñaawlu itam moom ni mu mën a ñëwee ba Kaolack si ziara annuelle Léona Niassène des ñetti fan moom ministre de l'intérieur tegul tànkam a Niassène loolu yëpp ñu ngi koy déployer di ko ñaawlu